إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العظيم xale bi مودم دبي te xam ngeen ne concours international bi gën a jafe mooy du y avait soixante douze pays yàlla dogal mu jóge Sénégal dem tey ba nga déggee xale bi moo jël deuxième yaa ma wol sopp ne dama ko bëgg a recevoir pour sargal ko loolu ñu la sant la gërëm ndax man ma la man la cee bañ a fekk. ñu la sant la gërëm di ñaan itam nga santal ñu bu le président de la République ak premier ministre seen taxawaay rafet na. yéen a ngi liggéey ci réew mi liggéey bu rëy boo xam ne wax dëgg ñëpp gis nañ ko kon mënuñu lu may ñaanal leen euh, ci ci zaahir ak ci baatin yàlla may leen li ngeen bëgg. soxna May mi mandarga la ci daara ak son importance li tax soxna May teral nga d'abord say waajur teral nga sa borom daara. teral nga sa réew teral nga toute une nation sénégalaise teral nga xeetu doomu aadama nit ku ñuul parce que dafa am importance da nga fekki rek d'abord yoon wi nga xam ne wi déjà moom la yàlla suñu borom tracé woon pour suñu yonent bu sell wi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tay mandarga boo xamni bi bii sénégalais bépp doomu jullit warna na euh, xalaat dugal doomam ci daara ci cycle alcorane mu doora fekki parce que da koy aar ñi koy aare moy àddina ci légui dafa tëradi agression bi du agression physique rek mais agression psychologique la parce que suñu environnement 21e siècle moo mel environnement nouvelle technologie de l'information et de la communication suñu système éducatif xam ci dara président mi ngi a dox ay yu bëree bëri bëri pour nous intégrer euh, euh, dans yi ci biir programme programme rénovation daara yi ak ak président moo ñëw euh, arabisant yi qui légaliser donc euh, soxna May m'a ngi lay encouragé da nga euh, dem ba doctorat passé doctorat euh, nek au service de la nation sénégalaise de la nation africaine de la nation mondiale en tout cas man suis ngi lay félicité di le gërëm di le sante te dina waxtaan ak président Yegulko ko jaloore bi nga def pour vous recevoir le plus rapidement possible dina ñewit président Lo daara jooju nga xam ne foofu la génnee danaa fa ñëw euh, def fa conférence ci plan Sénégal émergent parce que jeunesse bi dafa moo njëkk ci plan Sénégal émergent dis-moi quelle jeunesse tu as je te quelle nation tu seras